rom saar ñaar kon nag képp ku mu mën a doon yow mi àtte sa moroom ak ñaaw njort amuloo aw lay ndaxte àtte sa moroom daan sa bopp la yaa ngi koy àtte ndax ay jëfam fekk yow itam noonu ngay jëfe xam nanu ne ñiy jëfe noonu yàlla dina leen àtte te àtteem jub na yow nag mi àtte ñiy def loolu te di ko def ndax defe nga ne dinga rëcc ci àtteb yàlla ndax danga xeeb mbaaxu yàlla mi yeexa merte di la muñal xanaa xamuloo ne yàllaa ngi lay won mbaaxaayam ngir nga rëccu say bàkkaar waaye ndegam dëgër nga bopp te bëgguloo rëccu yaa ngi dajale merum yàlla ci sa bopp ndaxte yàlla sàkk na bés bu muy wone àtteem bu jub bi te meram wàcc ci ñi bon bés booba dina delloo ku nekk ay jëfam ñiy góorgóorlu ci def lu baax bëgg yàlla boole leen ca ndamam te sedd leen ngërëm ak dund gu sax dina leen tàbbal ci dund gu dul jeex waaye ñu dëgër bopp ba tangam lu dëgg di topp lu juba jubadi seen pey mooy dooni merum yàlla ak toroxte ki doon def lu bon peyam mooy tiis ak metit wu tar muy yawut ci bu jëkk mbaa ki dul yawut waaye ki doon def lu baax añam mooy bokk ci ndamu yàlla am ngërëm ak jàmm mu yewut ci bu jëkk mbaa ki dul yewut ndaxte ñépp yem fa kanam yàlla képp ku doon bàkkaar nag te nekkuloo woon ci yoonu musaa yàlla dina la àtte ci lu yoonu musaa nga doora a te képp ku doon bàkkaar te nga nekkoon ci yoonu musaa yàlla dina la àtte ci yoon woowu kon déglu yoonu musaa rekk doyul du loolu mooy tax nit jub ci kanamu yàlla kiy sàmm yoon wi moom la yàlla di àtte ni jub ndax ñi dul yewuut te nekkuñu ci yoonu musaa ñu ngi def lu yoon woowu tëral ndaxte yàlla def na ko ci nit te wone nañu noonu ne mën nañoo ràññee lu baax ak lu bon suñu nekkul sax ci yoonu musaa di wone it ne yàlla bind na ci seen xol jëfi yoonu musaa santaane seen xelit seede na ni noonu la fekk seeni xalaat ñoo leen di tuumaal mbaa ñu leen di jégal ndax bés dina ñëw bu xalaat yu làq yi di feeñ te yàlla àtte nit ñi jaalale ko ci yeesu kirist xebaar bu baax bi may waare moo ko wax maa ngi ñëw nag ci yow mi ne yëwut nga yaa ngi sukkandiku ci yoonu musaa ak di damu ci yàlla xam nga coobareem ndaxte jàng nga ci yoonu musaa ba fonk yëf yi gën a baax yaa ngi teg sa bopp wamatkatu gumba yi ak leeru ñi nekk ci lëndëm yaa di jàngalekatu ñi jàngul ak xamlekatu ñi xamul ndaxte xalaat nga ne yàlla jagleel na leen ci yoonu musaa bépp xam-xam ak gépp dëgg kon nag yow miy jàngal say moroom xanaa doo jàngal sa bopp yow mi waare di tere sàcc mbaa doo sàcc yow itam yow mi tere njaaloo mbaa doo njaaloo yow mi araamal xërëm yi mbaa doo sàcc li nekk ci seeni xàmb yow mi damoo yoonu musaa mbaa doo ko moy ba indi gàcce ci turu yàlla moo tax mbind mi ne yéen a tax ñi nekkul yawut di suufeel turu yàlla bëggoon naa ngeen xam ne xaraf am na njariñ boo ca boolee sàmm yoon waaye boo ko ca boolewul sa xaraf amatul njariñ te itam ku xaraful tey def jëf yu jub yi yoonu musaa santaane ndax yàlla du ko teg ni ku xaraf ku dul yewut te xaraful waaye di sàmm yoon wi kooku dina la mën a àtte yow yawut bi ndaxte li ngay xam-xam yoonu Musaa ci mbind mi te xaraf terewul nga koy moy juddu nekk yawut taxul sag yawut dëggu te xaraf ci saw yaram taxul sa xaraf wóor waaye yawut dëgg ci xol lay nekk te xaraf dëgg itam ci xol lay nekk du ngistal lu dëggu la te képp ku mel noonu des na la gërëm waxuma la nit ñi waaye yàlla ci boppam